imaam yoroka di ko ziyaar bu baax di ko ñaanal lu mu jiite yàlla na ko yàlla nangu ñi topp ci ginnaawam it yàlla nangul leen nuyu Baye Talla Sylla bu Serigne Mansour borom daari sànq la ma ba di ma wax ni ma Serigne Mansour moo ko ñaanal ma ni ko ah kon dañoo bokk ku nu ñaanal ndax bu ma burdu sax sam papa ana ana chat, maa ngi di sam papa faatoo bi mu dañu ani ana caatu mbay doon dem ñu dem jëli ma mu jël xaalis bu bari def ko ci enveloppe jox ma ko yàlla yàlla dolli leeru bàmmeelam ñu sant ko ci li mu def ci daara ji yàlla nag nga ko defal yàlla mi am fay yàlla na la fay ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa nuyu wëllëre bàyyi soppe bàyyi di xaritam di bàyyi Lamine Ka sànq dafa ñëw fekk ma nekk ci sama kurus bëggoon naa sax jaar kër ga waaye daa xaw guddi waaye am cofeel rekk xam ne nit bu la soppee mënatoo koo fay waa Ngéwul TV nag loolu bu leen ko def ci TikTok bi ak yéen ñi filmer <coughs> waa Ngéwul TV moom samay xarit lañu te ñu jàmbaare lañu yal na yàlla yëkkati leen ca kaw ci barke Seydina Muhammad bàyyi lamin ko ñu nuyu ko bu baax ziyaar ko di ko ñaanal yàlla na yàlla may ko fan mu gudd waa ndeg wér nuyu sama mag sama xarit sama ndijaay di bàyyi asfaal mële ndeysaan daf daan sonn ci man fu ne wax naa ko dem na ba ci sëriñ Abdul Aziz Al ne ko sëriñ bi dama bëgg nga ñaanal Pape Malick ndax xale la te mu ngi liggéey ci tarixa bi lu rëy ndax fexe na ba xale yi daan fo yépp bàyyi nan ko di tagg yonent moo tax ngeen baal ma rek tàccul ma ko Baye Ass Fall ku baax la moo jur oustaz Modou Fall sànq rek woo na ma bi ma nekkee ci dal bi ndax duñ toog guddi gu nu waxul man moom ni ma léegi laa génnee Radisson doon fa def conférence ma ni ko danga ma bëgg nangu ci sa papa rek waaye sa papaay sama xarit waaye Baye Fall mii nit ku baax la nit ku tedd la yàlla na yàlla fay ko gàmm gi day mel ni moom moom gàmm gi te moo ko moom sax ñaari fan yu nekk woon na ma yàlla xam na ko kon nag yàlla na yàlla fay la Baye may gën a eh, sama cofeel ci yow yal na yàlla fay la nuyu mbokkam mu baax mi mu àndal Baye Moussa Ndiaye ziyaar ko ñaanal ko ak Baye Pape Ndiaye nuyu itam sëriñ Habib Sall ziyaar ko bu baax a baax a baax nuyu Omar Sall ak Góora Sall Omar ak Góora moom xam naa leen ma woo ci téléphone moom mënoon nañ cee financé gàmmu sànq dama xamul kan la ci ñoom ñaar woote ci numéro Pa Matar ma ni ko sëñ bi ñëw ma de waaye woo àdduna bi yëpp diggante boobu ku ne woo na ma waaye kilifa yi dañuy wax ni ki la sonal moo la gënal ki la mën a muñ ndax ki la sonal sopp na la ki la mën a muñ nag noppal na la mm. eh, eh, Baye Mbaye Aïda Sall mooy chef de village ñoo nuyu ko ñaanal ko waaye Omar ak Gora daal moom wax dëgg yàlla ñu jara jaajëfal lañu waaye tàccu leen leen tàccu ah, nuyu Mansour Sall nuyu Ibu Combaan mi doon tagg yonent bi ah, fa tabaarakallaahu fekk naa ko ba këram yàgg ya Ya 2014 yal na yàlla barkeel nuyu Pape Gueye mii nga xam ne suñu lépp la di xale bu baax bëgg Pape Makhtar lool bëgg ñu lool ànd ak way juróom di Marème Seck Pape ñu ngi lay ñaanal fi nga bëgg a ci tagg yonent bi yàlla na fa àgg gàmm gi moom rekk mënoon na ko taxawe waaye bëggoon barke rekk bu Baye Mbaye doon daan def defe naa moo daan ñëw fii kuy mbay mbay lanu àndal daan séedee loolu séedee kër daan séedee xalifa yaay dama jaar xaddamti ko rek nuyu sama frère bi Moustapha Jamil wax dëgg yàlla fan yii rek maa ngi koy seetaan ci Malikia TV eh, yàlla na yàlla <laughs> barkeel waaw neexee ñibbi neex na ba noppi tey kay gàmm gi dina ala mi moom Mandi ngi nuyu soxna yi waaw wallaay waaw nga dem ko sa maram ak jaaña eh, sall non la ak sofi ak ndeysal ak ndela Badiane ak bintaka ak sen bay ah neena adde bal haj alxaaj mbay dond bii nag ci poste bi la koy def maa ngi nuyu ñëpp iliman nga xamni Cheikh Tidiane bay rek la bëgg sama mak mo ngi ni ah, yàlla yalla yàlla ko nuyu wandar geej ak sama ambassadeur eh, Medoune Ba ànd ak ñi mu àndal ñëpp fu mu dégg ni dama fay gàmmu rek mu dem fa takat boutique la yoon man dama naan ko waa Medoune yow ndax di nga xëy bopp waaye cofeel rek ñu ñaan bu déwee ne yàlla nañ ñëwaat eh, xam naa ni waa guy mbay moom bu ma ñëwul woon tey seen gàmmu gii dinañ ma tabaski waaye nag noonu la ndax du ñun bàyyi mbay doon do tax nuyu sama doom Assane Mbay ñu ngi koy ñaanal moom itam xale la waaye ku sawar la sànq yuuxu naa ko def ko lépp waaye mu won ma rek ni ma yaay sama bàyyi te loolu rek laa ci am na yàlla na yàlla fay ko dëkk bi ku fi ñëw xam ni gàmmu gi Serigne Babacar Sy dugal na ci loxo suma jumul demb la courant bi ñew kon xam ngeen ni leeru sëñ babakar la andal ma leen di wax nag gamu gi ku fi fanan aaji bo am yalla dina ko fay ci barki sëñ babakar nu jang fatiha ñetti ko salatul fatih def ko hëddee ci yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ñaanal way dewi wa nga nekk mi nga xam ne moo soccoo dëkk bii moo jur sama baay moo demal ci Seydi Aji Malick mu utloo ko iliman mu jox ko baay Seydi Alioune Ba bàyyi Seydi Alioune Ba nekk fi di fi taxawee ba yàlla te sax mu aw ndi ko fekk ko fi yàlla dogal Sëñ Mor oo njëkk a fekk ko fi ñu nekk ci daara jamonoy dox jamay dox nekk am ñetti taaw Mali Ngom Ousmane Daak Moussa Tall Aliou Pendaat ñoo yoroon dëkk bi di ko doxal ba yàlla dogal tey jii dogal bii tey ci sama ajo la aju sama loxo la aju tey Guy Marius Sagna tey sama loxo la aju maa joxe adde bàyyi neete cinq mille francs maa ko jox ci Seydi Aji Maalik mi ko daloon joxoon ko imam maa ko joxeel lii addi jay neete mi ngi nii ci Seydi Aji Maalik mi nga xam ne moo ko tolle imam Seydi Alioune Ba wasalaam te yéen. jërëjëf. sama doom bu góor. waaye ah mi ngeen bëgg doom sama doom. waaw sa doom. sama doom bu góor doomu Modou Abdoulaye. sa doom waaw. doomu Modou Abdoulaye. sànni doomi moo dam ne laaj sànn lokot jox na la ñaari junni Kaliphone Mansour Mansour Sall doomi Abdoulaye Sall jox na la junni macha Allah am am danaa ko wax da ko jar na ko jar na ko jar na ko waaw maa ngi nii nag sama carte d'identité bi ma àndal di Pape Makhtar Ndiaye di xale waaye di xale bu am euh, personnalité di xale bu baax bu yaru ma leen koy dénk nag yéen waa Guy Mbaye Sall ba Maxtaar lu ma waay doon jox boo ko gisee boo ko joxee rek mel na ni jox ko maa ngi leen koy dénk bu baax yal yàlla sàmm leen euh, nuyu Ndumbe euh, ju jóge ba Gumba Ngéewul Seydina Omar bi may ñëw la ma jox euh, mbubb mu rafet ci station bi ni ma nanga ko sol waaye dama comme soxna see ma sololoon bi ma ni naa ko sol bu ma koy seeti dem sol ko nag fa tabaarakallaahu yàlla na yàlla barkeel ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi waaw ma ne ñu jàng fatiha waa njaboot seen Babacar Si yi nekk ngumba tama defaloon leen tàkkusaan bi indi nañ seen leet yàlla na yàlla mottali ñu jàng fatiha ñetti ixlaas tëjee ko salaatul fatiha yéene ko mag ñi nekk ci biir suuf comme ni ko suñu baay bii waxe ñu yéene ci Baye Alxaaji Bay Dondo Serigne Cheikh Tidiane dafa wax ni eh, su weeru koor jotee bu timis jotee ñi nekk ci àdduna dañuy dog seen koor ne ña ca bàmmeel ya continuer seen koor te bala ñoo dog di yowmal xiyaam mu ni boo nekkee ci koor par at gi ba dog jot نلفاتلي كورك بامن وصوم ذكرى لأيام الخبور لهم وفي الخبور لهم أهل بزلفاء كن نجوخ مكني سين والي تيغامك بسم الله لا إله إلا الله سترا سترا سرين باب كرسيني يا عالما لنا الجميع لا أزرار ñu ni Serigne Mansour borom daari mu dama gént sama mam Seydil Xaaji Maalik ni ma demal ci sa baay Sëriñ Babacar nga ni na ma yaa man azharal janiila Sëriñ Mansoor ñëw ci baayam Sëriñ Babacar ni ko baay saamaam nga yokkal ko yaa man azharal jamila sëriñ Babacar ni ko kado boo xam ni yàlla moo ko jox sayyiduna Muhammad nan laa koy yokke koy yokke ni ko xam naa sa maam dafa bëgg ma def ci tëwasul nga dégg sëriñ Babacar naa يا عالما لنا الجميع أزهرا وغافرا لنا الحبيب حسن درا ولم يواحزا لنا الجريء يا حسنات تجاوز العميم يا واسع المغفرة الهميم يا باسط اليدين يا ذا الرحمة يا سامع بكل نهج ومنتهى ويا كريم الصفح يا حليما ويا عظيم المن يا رحيما ويا مقيل العسرات فواد فواد فواد مبتدئا بنعم ومن هبة سمسرنا بالفضل والإحسان ربي فانا أنا نبغى بربنا من قبل باستحقاقها جلالا سرين باب كرسينا بالفضل والإحسان ربي فانا من قبل باستغناقها جل على بالفن والإنسان ربي فلا من قبل باستغناقها جل على سيد بابكر سنينا يا ربي سيدي ويا مولاي ليس ليس غاية رغبتي أتم محياي ربي سيدي ويا مولاي غاية ربتي أتي محيا ربي سيدي ويا مولاي غاية ربتي أتي محيا سيدي ويا مولاي غاية رغبتي أتم إياي يا ربي سيدي ويا مولاي غاية رغبتي أتم إياي يا ربي سيدي ويا مولاي غاية رغبتي أتم إياي يا ربي سيدي ويا مولاي طريقة محياي أسألك اللهم يا رحمن فلا تسوي ختيما على بلاد يا ذا Ya Ilah علي الأوصار وسيد الحال أسمائك الحسنى وأعظمها parceiro Wow. أسماء انوار تبعا Chegou Hallelujah. sunshine. Wow, wow.

C'est

فتورا فتورا عمن نعم المي خرفا in me. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, لا لا لا لا قريب بيننا أرجو لا لا لا لا قريب بيننا أرجو لا لا لا لا قريب بيننا أرجو لا لا لا لا قريب بيننا أرجو يا إبراهيم لا لا لا قريب بيننا أرجو لا لا ca kaw ki fi yëngal la la la xalifa baydana bari ni kenn tegaale la la la xalifa baydana arjo xalifa la la la xalifa baydana muy may sàllu yéen a tàntale la la la xalifa baydana arjo xalifa la la la xalifa baydana loxo ca kaw ki fi yëngal la la la xalifa baydana arjo xalifa Yeah.

But to her. Shut up. bay bay doon ne may yal na yàlla yokk leeru ba melam maluma nii la daan waye summal ali sahbil kurama wa humul

ci barke Serigne mapenda wala wala ba wala wala ba ana ñu bëgg maam Rokhaya Njaay mu nga ca Louga wa umma ala ay ci def leen mi bakare mbay moo daan wayel sëriñ Babacar su wayelee borom bone kaare bi ba sëriñ Babacar génn toog ci saal bi bay mbay doon nga nee na bi dama leen di laaj kan moo fi gën a bëgg sëriñ Babacar dégguma leen kan moo fi gën bëgg borom bu ne sama papa bu musaana wayal Sëriñ Babacar ba sëñ Babacar génn ci saal bi ne bu toogee danaan ko dondoo waaye lu jiitu loolu addi sëñ Babacar yal na yàlla fay ci barke borom bu ne kaay bay mbay doon doonee na sëñ Babacar du gestu bay mbay doon doonee na sëriñ Babacar du tifli bay mbay doon doonee na sëriñ Babacar du xaxtandeeko bay mbay doon doonee na sëriñ Babacar weñ du ko laal xam nga soo ragalee yàlla li yàlla bind yépp dalay ragal dégg ci sama way wi ma nit ku nekk am nga ku lay yëngal waaye waa guy mbay sàll sëriñ Babacar moo leen di yëngal ku fi sëriñ Babacar di yëngal jógal taxaw nit ku faatiri naana xalifa mbay mi fi nekkoon ah yoroon xilaaf. asfaal nee na Daaru Salaam la àndal. ah ah. ah. njaboot ji maam desi baata. Serigne Babacar. bu leen ko fàtte di ñaanal xalifa mbay mi fi nekkoon waaw yoroon bi la gi mbootu njaboot gi mawl du si boot Serigne Babacar Serigne Babacar Maam Maodo seen ko fi ba xëy ni mbay na nga ñëw tey xalifa bi liggéey ba tey ñëwal ba gis añu yàlla Bakar Mahmoud si jëkkër ñaanal Khalifa Sheikh nyana ko Rasulullah ay may Serigne bakar, ku dembo woy wii nag su ma koy woy bëgguma kenn noy ndeysaan waaw bu kenn noy ku dem ti waa won dem góor ak jigéen ña fe nekkoon ngëni ëskay alaxira فكر حوادث الخيرات شيخ نينا كن دوكو فاتي سنغال لكوتي ñépp ko seede ci loolu Serigne Babacar mësula mooy boroom moo tax Baye As su ngeen demee Tiwaawan ziar général walla gam nga gis rang ba jëm ca raw du Serigne Babacar bopp baa nga commencé ci kuli di jaar ñëpp di booxante di xëccoo ngir ziar Serigne Babacar te li nit ñi bari bari ku fa dugg aajo boo fa indi yàlla faj ko ci barki Serigne Babacar xam nga lu ko ko may. mësula mooy boroomam moo tax ñun tiijaani rekk am sëriñ bu wax loolu mësula mooy boroomam mësula fecc kóllëre mësula ak mbokkam wax lu amul digi ko Bakar musuloo gis ab nataal nataal mooy foto maama sol lu fokk wala ci mbay laa kat fël du masuulu ma mbay si nee na suma doono mi kañ sax man duma yar bi mu yore ci biir mbooloo moo tax jëmi am na ñoo xam ni sama classe bi ci mbooloo rek la ñuy waaye bu nu wéetee toj réew mi sëriñ Babacar nag ni mu mel ci biir noonu la mel ci biti dégg naa boo ko musaana fekk mu tëdd soo ñëwee borom bone ne kaari bi tëddoon doo xàmmee fan la tëdd ndax yaru ñun nag dañuy bërëngu rek boo ko musaana jox mu lekk boo ñëwee ci ndab li doo xam fan la borom ba ne kaari bi doon tibb ndax yaru ñun dañuy tuur yar bi mu yore ci biir mbooloo moom lay saxoo saa yu wéetoo ngir bët yàlla bi ko soppoo tax na du jëfe lu dul yoonoo Sëriñ Babacar buy dox du gestu gannaawam tey oto dut kenn nee naa ko sa way wi mag ñee la ko dégg woy wi daa indi léppi sëñ Babacar buy dox du gestu gannaaw bëtam du xool lu dul fi mu jëmami yar bi ci mbay moom laaye ku mel ni góor gi dootul yombo sëriñ Babacar bu ñu la musaan indi ci moomi si te àndug moom mooy laaj xew ngir maandoo asgor dafay gestu démb sëriñ Babacar bu weeru koor wi ma saan moo tax as sa góor gi yàgg naa riif yi sëñ aw ci Sénégal ba ca Congo balaa fajar ñépp yóbbu bàyyi Abdul Aziz la koy doxloo baay Serigne Abdou Amin kori gi ñëw naka noonu di tànk naka noonu ah. kori gi ñëw naka noonu te bés ki ñëw naka noonu sëriñ bi tam naka noonu bàyyi Abdul Aziz la koy doxloo sëriñ Babacar boo ko mosaana présenté sa àndandoo di ko fàtte saa di laa laajte xalifa moo mata doy loo sëriñ Babacar boo ko mosaana day soxla ba muñ ba teg ca inshaallah nga xam bay mooy waajo tey ji la raw ziyaari leen ko sëriñ Babacar magam yi mi noon jataaya ko wecceek ku dul soppeek loolu waxi may la ñi gëm mag ñaa ngi nii xam ngeen loolu xale yi juddu ci ginnaaw mbay ana xale yi juddu ci ginnaaw mbay kan moo fi juddu ci ginnaaw mbay ku fi juddu ci ginnaaw Serigne Babacar tëggam ko jugal taxaw xale yi juddu ci ginnaaw mbay sunu mbay te mbay lañu gëm bur yàlla moo ko ko jégleelo bur yàlla dolli la teero bur yàlla dolli la teero bur yàlla dolli la sargal cheikhul xalifa suñu maam booy te dolli jaamal jawata luy àndandoo di ziyaare bay bay doon da neena suñu bay te bay lanu gëm ah ko ci waxal mooy bu yàlla moo ko ko jagleel xale yi juddu ci ginnaaw bay gisuñu mbay te mbay lanu gëm ko ci waxal mbay mooy maama bu yàlla moo ko ko jagleel bay mbay donda nee na bi nee na wàccee ngeen fi waaye damay yéegal damay wàcce di yéegal ah mooy suñu yaay ndeysaan yàlla na ko yàlla sàmm ba mu jóge màgg ñu ñëw di ko ko wàcceel ci darajey Seydina Muhammad bay mbay donda nee na yéen waa guy mbay sàll bu leen neexee bu leen naqaree seen gàmmu gi day alaa dawme bay mbay dondonee na bu ma génnee nag ba way ba noppi ba sëñ Babacar Gueye moo tax sama doom bi ma tudde xalifa mbay dani ma papa foto bi ci saal bi daal fu ma dem rek damay xool ma ni ko noonu lay def ñépp samaam xalifa la ca laa xalaate way wi sax naan góor gi ci foto bi kéemaan la Sëriñ Babacar mi ci photo bi kéemaan la demal ca rawde ba ñaan yàlla loo fa ñaan yàlla may la ko Sëriñ Babacar moo ñaanal sama baay moo ñaanal sama baay moo ñaanal sama baay moo ñaanal sama baay baay mbay dondo ku man yaa ma jàngal dama la ko sagale waaye sëriñ Babacar ba ma ñaanalee ci laa xam lépp moo ñaanal sama baay ñaanam nga mooy rogolaat ci ñun yàlla na dem ba ca sëtëm ya sëriñ Babacar képp kuy taalibeem bul jaaxle yow mal bokk nga ca way texe yaa sëriñ Babacar sopp na Cheikh ana Tijaani ana Cheikhi sopp na Cheikhana Tijaani sopp na Cheikhana Tijaani sopp na Cheikhana Tijaani cofeel ga feeñ na ca mbindam yi bay bay dondo neena Serigne li ma soxla woon bay bay dondo neena Serigne Babacar bu toogee ñi ci saal bi yëpp ku nekk da ngay defal ni yow la borom ba ne kaara bi di xool bay bay dondo ni Serigne ni ko dondo way nga sa ba nopp نوبي بكل مسمسرين موي شيخنا التيجاني انا طالب شيخي كفي امولا ماي كفي مسمولا جو دي كسرين بابا كنا بفاوي ان المنايل تهمي من مدايا يا مغنيل تهمي من مدايا لفاوي ان المنايل يا لا إيمان من الغاوي إن المنايلة وإن مزايا يا شاعت وراثته أعطاه ختم من الرحمن والمعنى إن المنى يا يا المعرفة إن المنايل قومي من مزايا يا منايل تمي من مزايا أنا طالب شيخي أتاو ختم من الرحمن الرحمن والمعرفة إن المنايل

العذر في جمع الباء إذن ربنا أشبال وابلغ فيها فاقم أمين الليل أسماء الناس العذر في جمع الباء إذن ربنا أنا سبي سن بابك ما زايا أجمل وبل في فاهم أمير الميل أسباب الناس الغفي جمع الفائل إن المنايل تروح المزايا mais Serigne Babacar mënuma koo fay ndax fexe na ba fu mu yóbbu turam yóbbu na fa sama tur firnde bi moo di la yéen waa guy mbay su ngeen demee gàmmu Tiwaawan kuréer soo bëggee feeñ danga naa nañu daje armée li bay doon doya yàlla moo ko defal ci pas-pasam ci Serigne Babacar sama papa nee na alsaanay sama baay jafaati mooy sama yaay waaye sama demee gaaya ca waalo suñu génnee di ma teeru ni nga ca fas yi góor ya tàllal seen siri dëkk di ma teeru ma leen di wayal naan fii jadu waaw mbay doomi gaaya yéen yéen a fii jadu waaw fii jadu waaw ngi bëgg sëñ doomi gaay yéen mbay doomi gaay yéen sama papa koy fi jaduwa waawa tey ma way waa way waa mbay doomi gaay yéen ko jur bay mbay doon de sëriñ Babacar Si jël na nam la fi ku jur baay mbay Si jël na ndam la di jatuwaawo يا رب ما والمدح أفواه فهين الليل قلق وفي قلق يا صدق في محياه يا سالكا سنة لحجة الذي سار أي شرفت به أحبك

young, young, young, young, kaw ki ko doon mooy sëñ Babacar lu mu wax a ñu bëgg sëñ ki ko doon sëñ lu mu wax yàlla def na ko waa guy mbay xalu Babacar lu mu wax yàlla def na ko ki ko doon sëñ Babacar lu mu wax yàlla def na lu ma wax yàlla def na ko Seydi Aboubacar lu ma wax yàlla def na ko Seydi Aboubacar lu ma wax yàlla def na ko ma la may werd Seydi Aboubacar lu ma wax yàlla def na ko ma la may werd Seydi Aboubacar lu ma wax yàlla def na ko Seydi Aboubacar lu ma wax yàlla def na ko ko may weer loxo ca kaw góor gi sëñ Babacar moo ko may weer wax yàlla defal na ko sëñ Babacar ku la gëm al ana bëgg naa man xalifa Ababacar ku ko gëm tàbbi aljanna sargal leen xalifa Ababacar lu mu wax yàlla def na ko ku fi yaakaar ni ginnaaw bay ku la gëm tàbbi am ku fi yaakaar ni ginnaaw bay ku la gëm tàbbi am dana wute ak kanam moom ku la gëm tàbbi ku la gëm loxo ca kaw loxo ca kaw xamuloo yàlla xamuloo ku la gëm tàbbi am ko may ko may ku la gëm taab bi yàlla dogal dana wuute ak kanam may ku la gëm taab bi tabbiyan sëñ Babacar yàlla ko may ku la gëm tabbiyan yàlla dogal yàlla ko may ku la gëm tabbiyan eh yàlla dogal yàlla ko may ku la gëm tabbiyan janna fi dunya ukhra akrim bi teral ya akramal ay kurama ya ay lamal Allah dama len di laaj ndax ëllëg ba ngeen a gis borom bone kaare bi deguma len di ba ngeen ko gis xam nga nu ngeen di def jëli len tariikha cheikh wax len wa yéen ndaw ñi yéen lay waxal ak jigeen ñi dem len ngeen jëli salatul fatih ndax àdduna bi àdduna ndaw ñi ñi bareetunu te mag ñi ndaw ñi lanu yaakaar ci diine jeeg tariixa bi kon dem leen ngeen ñaani salaatul faati bu ñu waxee rekk salibateer yi naan dañuy bàyyi ba am soxna xanaa naroo leen lu jub xanaa xamoo ni tariixa cheikh soo ko jëlee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 booy sukuraat dafay gaaw boo jëlee tariixa cheikh boo ñaawee sax bu yàggee dangay rafet boo jëlee tariixa cheikh dangay dem aljanna sa yaay day dem aljanna sa baay day dem aljanna say doom dañuy dem aljanna sit yu góor yi dañuy dem aljanna ku la may jabar dem aljanna ku la may jabar dem aljanna bu ci dàq mooy ba liggéey dangay dëkk ak Sëriñ Babacar demal Europe dem demal Amérique mbaa nga dem Asie foo dem ñu laaj la bay Babacar ah sëñ Babacar kuy taalibeem ak foo mën a ne bëgg naa la xam yow ñu ànd jëm ca baytu rasina waaw la ma dem ci àddina daañu naan xalifa ak ci leen ñu dem sëriñ Babacar rasina moo bay aas sama soppi ngeen ma bëggee dimbali mouvement yi nañ ko def benn ma tudde ko soppee caat ànd jëm ca mbay ànd jëm ca mbay ñu jëm ca mbay ñu jëm ca mbay ñu jëm ca mbay ñu naan xalifa eh, ah. mbay ànd jëm ca mbay ci sëñ Babacar sëñ Babacar way wu fi neex rek way mbaa ñu way la ko loo koy sëñ Babacar ture siw na waaw la bi ma dem ci àddina daañu naan xalifa loolu dëgg la sëñ Babacar moo tax ma ni siw way ko way way yow sëñ baaba wayal sëñ baaba soo bëggee ma lay wayal bëggal sëñ Babacar sëñ baaba kër gi laa faral turan siir na waawal du ma dem ci àddina ñu naan xalifa bu ne sëñ na ko waa sëñ Babacar ah. turan siir na sëñ Babacar tudd na mbay tudd xalifa sëñ di mbay amal bi maa ngi fii ci guy mbay sal dama ba ngeen wax ko ba waa Louga di ko dégg ku wax Seydi Mbaye amul moroom yàlla na nga raw say na Mbaye tudd Khalifa Seydi Mbaye amul moroom tudd na Mbaye tudd Khalifa Seydi Mbaye amul moroom nga bëgg salaaxa yi ma yi di ee waa kuy mbay yéen lay bégal ku ko bëgg salaaxa yi ca kaw ñu màggal ma yi Seydi e Mbay amoo ma Matar kilifa Seydi Mbaye amul moroom sama sëriñ du seen moroom Seydi Mbaye amul amul bul dendale Khalifa Mbaye amul moroom nangu na tekkale yow dendale Khalifa Mbaye du seen moroom jox ma sab loxo ma jox la ñu jox suy di bay jox doon siiw na ma dem ci àddina ne ka dana jox ko loxo xalifa ba waaw waaw sëriñ ba kere waa kuy bay wax ma sab aaju ma dégg jox ko suy di bay bilaay mu fajal la ko الحق من ذي حقهم وأتت أيد ملكك الأيام بايسر المصطفى سبر مسترشدين والمسترشدات دمنا فلا أنت رب واحد بصفاته وفعاله إلا كما خاتت به الأقلام برم دين فالشمس والخمر المنير وغيره والأرض والمريض لا ترى إلا كما تندق عرب جلال الأعلام ما الناس ما الأكوان ما الملك النذير في الجو ما الأخلاق ما الأرخام بار من قطر السماء ومن السماء السماء من الأمور عظام من لم يعد محمدا في علمه فالعلم في سانة وملام صلى عليه الله كل دقيقة bilaay bu ma sojul woon ngeen xam ni dinaa leen woyal salla alayhi llahu kulla daqiqatin عليه صلى الله كل دقيقة وعلى العلا صلوا عليه وقاموا صلى عليه الله كل دقيقة وعلى العلا صلوا عليه وقاموا moo tax àdduna li muy xumb xumb. li muy neex neex. waaw. bii. li way yi di neex neex. li muy xumb xumb. waaw. bis dina ñëw. ñu sang la sang laa gas ba mu xóot def ci bàmmeel. ليسان واي لولو جيرني خلات كا بس دينا نيو واتخ ادينا بي ان لمي خمب خمب لي متنان بس دينا نيو waaye man xam nga luma jaaxal man commencé ko dama don nuyu bis dina ñew ñu sang la sang la yow gas ba mu xor def ci bamé moo tax bari bari alal lu kiri bari bari lu buyi bari bari lu takkay bari bari benn kër rek nga mën a dëkk te su guddee li kër gi di yaatu yaatu benn néeg rek nga mën a fanaan li néeg bi di yaatu yaatu benn place rek nga mën a tëdd te boo tëddee nelaw xamoo ban waxtu nga nelaw te nelawee loo amoon fàtte nga ko soo deewee ñàkk nga ko ba mu des sa ba mu des sa moo tax maa ngi leen di fàttali lu ngeen yàkkamti yàkkamti fonk leen julli julli ko naan jullit laa te julli maam Abdou nee na xam ngeen ni julli lu rëy la inda maalikina mbooleem ibaadaati julley bopp ba dog dëgganul ab bopp bu dogee ab dund dootu fa am fab leen ko suulee ci des yàlla nan ci yàlla musal danga daan sangu tey dan lay sang yaa daan ubbi armoire bi xool mbubb mi dàq boole ko kol ak mbaxana ak ay dàll dinduroole tey ji juróom ñaari mètre perkaal rekk moo lay wër sa kër yi la gën a neex fa nga daan noppaloo yow tay gas nañu dugal la ci biir suuf bala ngaa jogoti di yowmal mau wali lii jarta waaja moo tax boo Medinatul Munawwara ca borom pavillon bu rafet ba ki tax ñu bind ñep dano gas ba mu xoor def ci bammel way ma ngi ñaan ku nekk nga dendal jox ko loxo di bal mak bal baal yalla nu yalla xir ci bopam waaw kon nag ñu jox kilifa yi ñu commencé guma gàmmu gi nag dama doon nuyu rek waa jërëjëf soxna Baye may doon may wajaa abi ayatin maa kulla qaalatin faman shakka fii فهو علم الدلالة أو الحق شك بعد علم الدلالة تقدم آذكرون مدى الدور يقرأه كوكما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يلا ما كفل إبراهيم قرأ kelfe kawul man dongu ibrahim dongu nema tapal no gara kelfe kawul neman dongu no don yala nema tapal musa arona gara kelfe kawul neman dong arona musa dongu yala nema tapal ali yasin gara kelfe kawul neman dongu neman salamun ala nuhin fil alamina نسلام على إبراهيم نسلام على موسى وآرون نسلام على الياسين waaye Mouhamad moom damaa woo samay quartier woo samay généraux woo samay officier ñu nay dabbee ngeen di aw moom Seydina Mouhamad Rasulullah inna allah وملائكته يصلون على النبي بلا فوت لم يجد كبر صلاة أكسي محمد محمد ما مودا سي أمامرهم جفالنا يا الله صبرهم وعن بان عبد الله كتن سخنام wakañaani woon fa rabbana fi ardi maa ngi def résumé conclusion wasama amina ala tasdi boo sumee mu ngi may mak Muhammad ya rabbi daay is'alna ay door li xaay ila diir lam yakun fala kaati dunya jab moo tax ak du may magi waa ji damay may baxa rek mbokk yi nag yàlla fa àttee